xam ne murit li ñu ko xamee mooy woyoflu ak diis bokkut ci murit sëñ Tuubaa dara wax ne yow murit bi da ngaa war a fexe da ngaa war a xam ne da ngaa war a jàpp ne yow dara kenn waru laa màggal wa annaka lasta mustahiq shay'an min at-ta'zim jàppal ne yow kenn waru laa jox benn cër loolu nga war a jàpp yow murit bali a'tabir min nafsika al-aadaba wala tutaliban bihi al-ashaaba mooy yow li nga war a jox cër bi nga war a jox nit ñi jox leen ko waaye bul jàpp ne kenn war naa war naa jox benn cër ay teggin na ko jëflanteeg ñëpp te bul séentu ci kenn mu jox la ab cër wala ay teggin da ci teg ne ku lay xas sax na nga muñ bul ko tontu ku lay saaga mbala wala muy xas da wax ne kii daal dama yaakaar ne keneen lay wax looy waxut ak ma da ngay noppi te muñ loolu sëñ bi daa digle ne boo toogee ci jotaay it na nga dal. te noppi ci lu amul njëriñ danaa wax it bi dafa war a fexe képp ku ko tooj mu jéggal ko képp ku ko xañ di ko bañ a jox mu fexe di ko jox moom képp ku ko dog mu fexe ba jox ko yooyu bi daa wax ne ab murid kenn warut sàkk ci moom dara lu man te jëfu ko lu waay sàkk ci te nga man ko na nga fexe ba ko ak rëy moom sëñ bi nu mos ci nangu dara te rëy ci lislaam si Seydina Muhammad danaa wax ne rëy ku ci am lu toll lii lii dee ci wet doonu ko àjjana ak rëy lu lu ci waay yomb lu tuuti tuuti xam na ne àjjana yow doo ko dugg moom yàlla yàlla musal ni woyof bi am ci jamono nun ñoo ko yëkkati nit ñee ko yëkkati jox ko cër biñ ko jox waaye moom mësta yëg benn cër ci boppam ab naar mas na ko wax naar dañ ko day demayoon ci moom lu bari am naa mas na ko ne yow day sa taribe yi damaa gis dañ laa fonk ba lu ne ñu ngi koy wax ci yow ñu ngi naa sax lu ne daal ñu ngi koy wax ci yow ci màggal sëñ bi ko ñoom day yàlla moo leen nëbb sama sikk wax ju réy gi noonu moom moom dafa jàppoon ne sikk yi nekk ci nit ñi dañ ko xul moo tax ñu fonk kooku boo gisee ci biir xaside yi itam waxi toroxlu rek la ci wax ak waxi wàcc boobu inni kasulun naaimun akulu inni humrun haahuna mulimu inni xaqirun muadimun dalilu wax yoo xam ni day wàcc boom ci ba ba ba suufee boom day wax ne man nit ñi jàpp ne damaa jub waaye ku bari sikk la yooyu sax kenn mënu ko firi lépp lépp ndax lam ci wax ci ak toroxlu lu kawe la qaala ubaydullahi ahmadul mulim al mutaazizu bi izzati rahim alhamdulillahi alladi qad satara bi fadlihi maayibi anil wara xata yadunnu annani zu diini wa azamu sha'niya kulla xiini ma annani aqbaxu min kulli laim subhaanahu rabban karimun wa hakim wax ne yàlla dama suturaal ba kenn xamul ci man benn sikk waaye man fiñ ma teg nekkuma ko fekk fañ ko teg fu ko raw sax fa la nekk waaye doon wàcce boobu ak rëy moom kon murit bu ne da ko war a moytu sëñ Tuubaa ci sirkul jawaahir nett nañu nett li bu xaw a xoromu boo xam ni xëy na man naa bokk sax ci israéliyaat bi ñu wax israéliyaat waaye dañ dañ ci misaal ak rëy nett li ba xaw naa gudd dama koy tënk rek xaw naa xoromu itam ndax dafa wax ne xam nga dañuy wax ne suuf si ñu ne ak adduna si ne ak li doomu aadama xam lépp ci ay biddiw ak galaxie yi ñuy wax ni yooyu mën nañoo jàpp ne fii li ci doomu aadama xam yëpp mi ngi ci asamaan su njëkk si te loolu moog asamaanu ñaareel si bu ñu la ko doon misaal bi ngi mel ne ab dërëm boo sànnee ceeb ab àll noonu la ko ñaareel si ëppee asamaanu ñaareel si na mi ngi mel ne dërëm boo sànni ci àll ni ko àll bi ëppee moom dërëm bi noonu la asamaanu ñaareel si ëppee su bu njëkk bi ñetteel bi noonu la ëppee ñaareel bi ñeenteel bi noonu la ëppee ñeenteel ba ci juróom-ñaari asamaan yëpp nag ni leen xalaat ëppee mi ngi mel ne ab dërëm boo teg ci ab àll bu yaatu ni ko àll bu ëppee noonu la ëpp ëppee mbooleem asamaan yëpp loolu la su suñ bi nag wax ne ci sirkul jawaar la ko wax ne bi yàlla bindee aras wax ne aras dafa màgg laa ilaha illa huwa rabbul arsil azim wax ne aras aras kër lu rëy la lu màgg la te yàlla xam nga lu wax ne loolu màgg na rek loolu day day day kon lu war a màgg lay doon nee na ci boppam daa jëkkee yëg boppam yëg ne man kat ku màgg la mbindeef mu màgg la ndax yàlla ci moom moo ne al arsul azim nee bi mu yëgee boppam yàlla bind meneen mbindeef moo xam ne mu ngi tudd tey xaan nee na xaan day mbindeef moo xam ni kenn mësut a gis mu ni mel yor na ci bopp lu mat téeméeri junni bopp jaan la meloo jaan la amee ba pare yor téeméeri junni bopp bopp bu ci ne toll ne déedéet yi asamaan yëpp adduna si yëpp nga gis ci asamaan si yëpp bopp dina la toll benn bopp bu ci ne nee na itam laaf yi mu yor yor na ci laaf lu toll quatre mille juróom-ñeenti junni quatre mille mooy ñaar ñeenti junni ñeenti junni laaf ñeenti junni laaf yoo xam ni laaf mu ci ne ay dunq la feese te dunq bu ci ne am malaayka ponkala malaayka moo tax moo taxaw ci kaw dunq wi yor xeejam rëy nee na jaan jooju bu ma saa sàbbaar yàlla rek aras ci boobu de tiit ñëpp tiit ndax xumbaay bi nee na moom dara jaan jooju bi ko yàlla bindee dafa ñëw wër aras ñeent junni yoon da ko wër ñeenti junni yoon aras yëg ne kon am na lu ko gën a tey xaar nag bi ko malaayka yi leeralee mbirum aras ak nam doon yëge boppam moom it bu tàmbali yëg boppam yëg ne man ginnaaw aras mii la yàlla wax ne ku màgg la te man maa ko maa ko tiital kon man am na ak màgg ne yàlla bindati meneen meneen meneen mbindeef moo xam ne lam-lam la tudd ak jaan la moom it yoo xam ni tey xaan mais ñuy waxoon léegi da doon doxantu ba mu yàgg rek mu ñëw dugg ci bakkanu jaan ñu génn ci beneen bakkan <laughs> bam mu duggee ba génn ci la xam ne ah naka man gis naa beneen mbindeef boo xam daal moo ma moo ma sut jaan ja jaan ji doon nelaw fekk doon nelaw bi muy dugg ci bakkal ba génn doon nelaw yëg ko bi mu yeewoo malayka yi leeral ko ne ba ah, jaan ji ñoo tayxaan daal nga xam ne mo moo titloo aras jaar na fi leeral ko mbiram ba mu àggal jaan ji topp ko dox topp ko lu mat juróomi téeméeri at bëggoon nee bu ma gisee rek def ko benn lanc waaye gisu ko momit bimu xamé mbirum la jitu ñi jitu won tay xal nak alas ak yoy mu da tàmbali moom jik boobu mom jaan yoy gis ni man dal dara gënuma mag dara gënuma rëy yàlla dogal mu daal di mar mom jaan bi mujj mi ngi turoon lam-lam neena mu daal di mar mar mu metti daal di ñëw ci génn géej bu ñuy wax baxrul majbub ngir naan léegi bi du ñëwee ci géej gi benn jiit benn benn mbindeef mu rëy moo xam ni mbott la meloo mbott la amee moo génn daal di koy def comme ni muy def comme ni mbott yi def gunóor yi wala boog kii kii naaw soccat yeeg ak kii weñ yi weñ xam nga mbott day gën a laam rek taxal ko ci dara dootu ko noonu la def jaan ji loolu la mbokk mi génn ci géej gi def ko noonu jaan ji mag ju rëy jooju mbott mi moom it moom it malayka yi ko mbirum jaan jéeg la fa mu jaar fépp ak nam gën a rëy jaan yi jiitoon nee moom it moom mbott mi tam la yëg boppam waaye mu ngi ci biir géej gi géej gi ne ko ah sa wax yow yaa ni sama biir kon xam maa la maa la maa la maa la ëpp yow bul bul bul wax yu xorom la géej gi ci moom tàmbali moom géej boobu ndax ginnaaw ñi ñu fi jaar yépp ak niñ magee ak ni nee moo leen ëpp moom it tàmbali yëg boobu moom géej gi nee na yàlla am malayka moo xam ne ponkala malayka la ñuy wax sal fax yaa yi bind ko ne ko demal wattu ji ko man du mën a tooyal sama mu ne ko nee na mu ne ko da ngay dem ci géej gi géej gi ñuy ba baj maj bu bo re nga tay fa sa bopp mais bi ñu ñëwee tànk gi bu nga ray ci bopp bi genn waal géej tooy genn waal tooy ay ay ay ay yu xaramu la yo xamne ne sëñ bi da ko min ko jeexee waaye même dañu roy lépp fekk lu lu barabu loolu dañu wax ne bindeef suñu borom yeeg màgga yi màgg yàlla dafa am bindeef yoo xam ne kenn xam lu toll lu ko neex nee na malaaka bi mu waxtoon bi mu defee noonu te bopp bi tooyul moom mu tàmbali yëg boppam yëg ne moom it moo gën a rëy ñëpp ndax ñi fi jaar ñëpp ci rëyaay gis nga ñoom moo leen ëpp nee yàlla yebalal ko beneen malaaka mu ñaa abda yaay ñëw ci moom ne ko loo bëgg mu ne ko man de waxtu laa lañ ma santoon te lu ma ñëwee géej gi gis ne sama gennaaru gi rek la tooy waaye mënut a tooy dem ne malaaka bu ko bi mu ko ne mu def ci moom géej goo xam ne da ko ba maanaam fi bopp ak fa géej gi toll mat dox man lu mat téeméeri na nga juróom téeméeri kilomètre malaaka mujj moom nag moom rëy rëy lu wut dafa wax dafa sàbbal suñu borom subhaana man maa ngi tudd seetlu suñu borom mi nga xam ne lu waay màgg-màgg rek mooy kilo la loolu suñ bee ko nag li liñ jublu rek mooy wane ne rëy amul solo te baaxut te day sànq nit da ci ab sëriñ sax suñ tubaab dara wax ne sëriñ boo dem gis ko muy yitteem di gën a féete nit ñi kaw nee na bàyyil sëriñ booba te dem ci keneen loolu sëriñ bi wa kullu man raayta yastaalul abid min al masaayixi fa daxu yaa murid